mu ngi noonu man je pense que loolu moom dañ ko war a li ngeen di wax nii ak li doyen di wax tout le temps mhm. que Sadio ni ñu ko war a wonee wonee wuñu ko mhm. noonu te loolu mooy dëgg dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a mhm. baax parce que waaw c'est un vrai ñaanco c'est un vrai lion donc félicité wallaahi a ñu bëree bëri mais nag xale yi ñu ngi commencé muus dañuy ñu ngi commencé muus léegi di ko xool bu baax a baax mais nañuy wane le côté buñ ko génne woon dañ ko war a génne waaw dina am ñu ko nañu wane nañu wane le côté waaw par contre boo xoolee nga takk jabar feneen la yi am loolu réseaux sociaux yi lañ anytime yi. Birama <laughs> Birama ah. anytime yi. Eh, diwa ma sax anytime. ay waay ah, waay Sadio macha allah mais mais nag mais nag gis nga moom li li li ngeen li mag ñi di faral di wax rek fi ndox daan taa boo nee ba tey fekk fa tey am na ñoo xam ne ñu ngi am kilifa ba tey. am na ñoo ne boo leen xoolee rek xam ne ñii ñemewu ñoo def nii wala ñemewu ñoo jaar fii am na ñoom ne bu ñu toogee ba tey dañuy dem ba nekk mag di sëy yor seen doom te bu ñu xalaatee benn affaire war xalaat seen yaay wala seen loolu mooy yar base bon ci Sadio Mané hmm. dire juste que c'est une fierté Sadio hmm. nekk na koo xamante ni vraiment ñëpp ko ñëpp a koy ndamoo ci li ma yaakaar parce que hmm. modèle la euh, modèle la ci sobriété model la ci discrétion mosoo gis Sadio Mané woo ay caméra di maye soo ko gis loolu mooy discrétion di def te yàlla tax donc je pense que mu ngi def te yàlla tax te yaakaar naa ni ëllëg dinañ wax ci Sadio yeneen yi mu doon def te kenn yëgu ko woon. te ñi ko yëg certainement dañ ne leen bu leen ko wax. ndax lu baax la mais soxlawu ci. publicité te un jour ou l'autre dina dina mës a euh, waaw pour wane rek ni jëf ju baax. tôt ou tard day ci day feeñ et puis day fay daal day fay mm-hmm. en ce qui concerne sa vie privée man bëgguma di dugg ci vie privée nit ki hmm, jël nañu photo jabaram tasaare ko fu ne mm-hmm. ku ne di ci am looy commentaire man du ma commentaire ci yooyu fa mu takkee na mu ko xamee ça ça ne pas li ma intéresse mooy Sadio Mané joueur la maillot Sénégal lay sol bu ma neexee critiquer ko positivement comme négativement ci matcham ci mhm. footballam mhm. lu weesu loolu du ma dugg ci téléphone bu yàqu ça ne m'intéresse pas yére bu mu hmm? soloon yu dagg yére yu mu soloon loolu dul l'essentiel parce que am na ñu ko fi jiitu mhm. ci tanière bi ak buzz bu ñu fi amoon Sadio Mané du am la moitié lan la ñu apporter rien du tout que des bêtises di jouer les bad boys les hooligans lu ne gis nañ ko fi te amul Sénégal benn njariñ te ñoo ñu yàq nañ ay ndaw te ay ndaw doon nañ leen jéem a suivre ci seen lancé mm-hmm. yaakaar ni débauche mm-hmm. terewul da ngay tàkk te te yàlla xam na ni da ngay di nga di nga di nga hmm? saxaar mais doo tàkk di saxaar mais doo tàkk yooyu yëpp yooyu yëpp am na fi ku mel ni Sadio Mané daal ku mel ni Sadio Mané daal parce que la génération de Sadio Mané la non génération bi la ah, si non génération bi yëpp la génération bi la ah. gisuñu leen ci ay boîte de nuit gisuñu leen ci euh, mais am na mais bu ñëw Sénégal bu ñëw Sénégal ko moom it ñu ngi liñ naan booy ànd la ku baax te àndee ku baax dangay ngay baax parfois. bu yàggee nga baax bu yàggee nga baax donc. Hmm. soo bëggul euh, baax sax dangay baax. oui da ngay donc Sadio daal loolu laa amoon lu may wax ci moom. di ko hmm. ñaanal carrière bi lu muy gën a gudd di gën a baax. amiin ah, di gën a am carrière bu gudd di gën a briller parce que du genre yi même bu ñu tekkee crampon yi aussi soxla nañ leen ci tanière bi. Hmm, parce que def nañ fi def nañ fi lu tax ñu bëri war leen mën a roy. jënd na équipe. su weesoo loolu. non Sadio dégg man la mu ngi def def mu ngi def ay jëf yoo xamante ni mu ngi def yoo xamante nii xam nga loolu sax peut-être bon. c'est c'est son business personnel quoi. non mais c'est business mais damay wax rek man li may intéresse surtout mooy li nga xamante ni vraiment. sa touche toute la communauté Sadio tey lu ñu wax ci moom hmm? lu ñu wax ci moom day toucher Sénégal yëpp du du wax du toucher Bambali rek turu dëkkam bu siiwee kan moo tax Sadio mhm. ñaata joueur ñoo am ay village mhm. kenn xamul seen i village seeni i origine voilà